نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي كسر رجب اكرمني يو نك yow li ci digal mooy danga ma daa bind bataaxal li ma li ma nee na maa bëgg a liggéeyal ka dem ko wax salam yi mi nga noonu kazu rajabin akramani yàlla mel ku bëgg a dem tegal ci yow ngir ngir ngir boo xam ne amul pakk amul dégg amul pax danga ko waaxoo ci def rek ba liggéey boobu boo demee parce que loo mën ak loo mën duñ ko ne chakk duñ si ba kazu rajabin akramani kazu rajab daf maa teral